jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di am kontante bu baax a baax ci yéen ci jox bopp bi ngeen ñi jox bopp tey nag ñoo ngi fii géej waay fi nga xamante ne mooy marché Sam seet si ki nga xamante ne ndaanaan la ci wàllu làmb ndaanaan la ci tëgg ndax su ma nee Balla Gaye ne Adama Ngom su ma nee Adama Ngom ne Balla Gaye ku ne xam ne ne Adama diggante mag Balla Gaye la nga xamante ni tëgal na ko ko génneel ko ko ci fent muy way saa bu tuusalee Balla Gaye am na ñoo xamante ni mbokk yi tuus moo leen andi ci lamb am na ñoo xamante ni bëre leen andi ci làmb am na ñoo xamante ambiance bi am ci làmb moo leen andi ci làmb ba tax na tey ñëw seet si ki nga xamante ni mooy père Adama Ngom ndax dafa bokk ci làmb lamb mbokk yi nekkul ki nga xamante ni mooy mbër mi wala nekku promoteur bi mais tëggkat bi ci la bokk amateur bi ci la bokk tax na tey dañoo ñëw seet si leen ki nga mooy Père Adama Ngom bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci digganteem ak Balla bëgg waxtaan ak moom géwél lan lay def ci mbër ndax dañuy gis mbër tuus ba ci yàgg jël sangoo yi laxas ko ci biir ndënd bi wala mbër tuus ba yàgg jox ko galañ bi mu càpp ko ci gàllaaj bi séddal leen ko wala mu gis mbër mu jël gàllaaj bi ñëw ba ci tëgg di sotti ko foofu am loo xam te ne da jël ci ñoom ba na tey mbokk yi ñëw seet leen Adama waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci lépp loo xam te ne aajoo ci ndënd sabar ak galañ ndax mbokk yi am na ay yu bëri yoo xam te nekk na ci waaye nag su ma ñëw tey sama daal yi nga xam te ni baaboo ma ko jox maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm jëlal ma ko yaa ngi gis daal yi kontaan na ci bu baax a baax yeneen yëpp nag mënu ma ko wanee ndax xam naa ne fi mu toll nii gars yi teg nañu bët waaye kontaan naa ci bu baax a baax mbokk yi ma dugg wala ma nuyu xale yi na ngeen def nuyu naa leen fi ngeen toog fi fan la fii seen Adama Kër Eka 14 Guédiawaye nii yi comme ni mu leen ko waxee léegi rek euh, euh, tey Père Adama Ngom lañ seet si euh, tëggkat dafa am solo ci mbër ndax mbokk yi am na ñoo xamante ni tous moo leen andi ci làmb am na ñoo xamante ni ambiance moo leen andi ci làmb am na ñoo xamante ni bëree leen andi ci làmb waaye mbokk yi tey ni mu leen ko waxee rek Balla Gaye digganteem ak Adama Ngom dinañ ci waxtaan Adama Ngom digganteem ak Sabar dinañ ci wax digganteem ak Galañ dinañ ci wax. est-ce que tëggkat am na solo ci mbër yooyu yëpp bëgg naa tey ñu waxtaane ko Père Adama nuyu naa la. jërëjëf Ouzin maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay. Mhm. di la ñaanal jàmm. amiin di wax yàlla sàmm la. amiin amiin di nuyu géejawaay gépp mhm. di nuyu ñi nga xam ne nii ñooy staffu Balla Gaye mhm. di ko commencé ci Aziz Ndiaye bàyyi njaay Massata. ak sama xarit Alioune Diaw. di nuyu tamit suñu président école. Moussa Ndiaye yal na ko yàlla defal jàmm. du nuyu géejawee yëpp daal di ñaanal Baye Balla yal na ko yàlla yërëm yóbbu ko àggina yi gën a kawe. amiin euh, ñu gis sa digganteem ak Balla Gaye sa digganteeg Balla Gaye yaag moom seen ànd kañ la woon. man ak Balla ñu ngi commencé ànd depuis 2005 ba 2021. 16 ans 16 ans ànd bu rafet jox ma cër jox ma sama gëdd. xam man maay kan yàlla dafa def sax moom daf ma rus tey jii bu toogee ci biir nit bu dee kaaf di bari su ma nee salaamaaleykum bàyyi na loolu lépp jox man bala daal euh, sama diggante ak moom daal maanaam daal dafa dem ba nekkatul géwél ak géer frère am laa léppam laa maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm euh, dañuy faral di gis des fois mbër buy ñëw di tuus dina tuus ba ci yàgg mu jël sango bi laxas ko ci ndënd yi wala des fois mu ñëw nga jox ko galañ bi mu cap ko ci ay butéel tëgg ko ci sabar bu ci nekk wala des fois mu ñëw fekk leen ngeen toog mu jël butéel wis leen yéen fa ngeen toog yëpp loolu lan la lan lan lay def ci mbër mi wala boo lan moo tax mbër mi du ko def. maanaam loolu boo ko gisee ay tegtal la rek. Mhm. parce que mbër moo gis soomee combat day dem ñaanlu. Mhm. sëriñ ba ngay dem nag di ñaanlu ci moom. mën na la jox sengoor wala butéel. Mhm. na la lii boo ñëwee ba ci géwél bi. Mhm. nii nga koy defee ak naa noonu lay demee rek ay tettal la rek moo waral mbër yi ngay gis ñu ñëw ba ci géwél bi di def ay signe daal. ok waaw tegtal la rek. tegtal la mais est-ce que est-ce que est-ce que mës nga toog benn jour nga jékki-jékki di dem làmb wala boo nga ñëw ba làmb ja sant na tey yow mii euh, jekk noonu la ci wàllu mystique. waaw loolu moom benn yoon la mas dal muy contre Eumeu Sène bu njëkk ba. premier combat premier combat Demba Diop. bi mu desee deux jours laa commencé am ndigg jour ñaari fan bu ñu desee ñaari fan. jour combat bi. bi ma départ fii ak sama oto di dem. Mhm. bi mu ñëwee ba station kastoor dama ne gars yi dem leen man ma dëpp ndax boobu sama ndigg li mu ngi gën a metti mais gaa yi ma àndaloon ñu continuer dem tëggali Balla Gaye nga man ma ñibbisi parce que moment boobu attuna tuma mitit bi quoi mais gars yi bañ bi ba ci buntu stade bi nag dama jafandu. boobu mëntu ko mëntu dara. jour boobu làmb ji waa 2 si ñoo ko doon def kii direct dama mujj dem ba ci seen oto bi ma tëdd pour xaar ñu woo Balla Gaye rek ma tuusal ko. boobu bëggatuloo woon ci làmb ji daal. boobu pare naa boo selloo Balla Gaye tuus boobu sax réglé wul xam nga tëgg mi doon balancé parce que lu may gën a tëgg. may sama ndigg di gën di maanaam lépp loo dóor ci ndënd la mu fayu ci man. ok noonu la demee woon. mais ñu daanee Balla gay fi ma taxaw dafa mel ni dara musuma dal. mbaa da nga mel ne ku yéen woon lu diis ba teggeeku ko. dama ñàkk tooy xepp dafa mel dañ ma sotti ndox ma ñàkk tooy xepp dara dal tu ma. kon làmb jooju daal na métti ci Balla Gaye nu ko la méttee woon ci yow. may la làmb jooju yëpp sama kaw la sama kaw la nekkoon man nag jour boobu la mës a dal te ñaanatuma yàlla mu dal ma incha allah. waaw kon làmb daal euh, bàyyiwuñu tëggkat bàyyiwuñu euh, kii ànd ak mbër bàyyiwuñu kenn. li ma la mën a xamal daal mooy géwél buy tëggal mbër jógal ci sa bopp ba pare xam yow neex jóg nga ci sa bopp ndax mbër mi suñ koy liggéey estafam bépp lañuy liggéey ba ci géwél bi ba ñu koy sotti biteel ñëpp lañuy boole liggéey géwël yi ku ciy tëggal mbër na jóg sa bopp. waaw loolu daal mooy fël. Euh, mais tëggal mbër est-ce que yomb na parce que da nga ciy dégg da nga ciy gis des fois mbër yoo xamante ni danga leen tëgg jaar nii ñoom ñu jaar nee est-ce que sa digganteeg Balla Gaye tëgg bi nga koy tëggal bi ñëpp xam bi ngeen koy doog a démarrer métti woon na. moo Balla nag moom presque benn yoon lañ ma a répété wala deux fois te moment boobu tëgg bi euh, dafa amoon lu ma ci yokkoon am lu ma ci génn am lu ma ci yokkoon. Mhm. ñu répété ko deux fois jeex na boobu ba léegi nag. Hmm? Balla moom yàlla moo def moom dégg loo tëgg danaa la tëggal su ma tëggee rek moom dina xam ni mu koy feccee te bu feccee rek ñëpp kontaan mbër la moo xam nii tëggal ko vraiment neex na parce que day jox ak tëgg. Mhm. waaw yow ni nga koy tëggee voilà yow ni ngi koy tëggee yow ah mu jóge ci soxol ah nga am yéene boobu di ko tëggal moom noonu la koy feccee. ban ban ban combat nga ñëw tëggal Balla Gaye yëg sa bopp sentir ne yaa ngi tëgg muy fecc lu neex ba nga kontaan ba aaru ban combat la. yëpp combat yëpp Balla nag dina la xamal leen de moom ku mu mën di bëril bu tuusee ñëpp kontaan. maa ngi nuyu ñee nuyu naa leen. bu tuusee émission <laughs> bu tuusee ñëpp kontaan Balla moom ah combat mi bu tuusee da koy teg ci yoon. waaw yëpp nag komba yëpp. mais ñu gis combat am mu Modou Lo taxaw. Euh, mu nekkoon combat boo xam te ne yëpp doon nañ ko bàyyi xel. mais nga fental ko ci benn woy defal ko ci kilip mu nekk son boo xamante ni Sénégal yëpp bàyyi woon nañ ko xel foo tourné woon euh, son boobu dañ ko daan teg naka la la dikkee woon ba nga inspiré ko ba mun ko koo defal moom Balla Gaye ci combat bu toll noonu. non mooy rythme bii muy fecc rek. gidda dawral ki gi gi cee. déet may ñu ko fii. ki gi gi ceekin ceekin gi cee. loolu laa jël boole ci sabar yi renforcer sabar yi rax ci clavier. doo ma ci may tuuti rek. waaw loolu neex na. <laughs> moom laa jël renforcer sabar yi def ci clavier def ko clip mu toj Sénégal. neexoon lool macha allah. ñëpp accepté. waaw mu nekkoon nag lu amoon solo ndax yokk na sama connaissance yóbbu na ma fu ne. Mhm. waaw te combat ak Modou Lo dafa amoon ampleur boo xam ne nii ah. nga def ko maa ngi koy nuyu moom Moussa Yacine xam naa bu ma jógee fii dinaa jëm ci moom. nga def clip boobu Moussa Yacine. way Modou Xaragne Lo way ko woy boo xamante ni neex na mu nekk diggante Parcelles ak géej Guédiawaye mu nekkoon euh, ambiance boo xamante nii ñëpp da leen combat boobu yóbbu na làmb fu sore sore sore. billaahi gis nga bu dee dëgg nga bëgg a dégg. Mhm. Balla Gaye Modou seen combat du yomb. déedéet de passage maa ngi nuyu Moussa Yacine sama rakk la. Mhm. du jox cër. parce que lii yéen da ngeen bokk ci làmb mm-hmm. démb maa ngi koy woo envoyé naa ko message xam naa bu ma jógee fii foofu laa jëm ci moom mm-hmm. parce que yéen da ngeen bokk ci làmb làmb comme ni ma ko waxee du mbër mi mm-hmm. promoteur bi tëggkat bi ci la bokk ndax tey boo bu Balla Gaye ñëwee te ñëw tëggal ko ñu bëri di seen xel dina def fu sore sore sore moo tax nag dama bëgg moom mu waajal mu baax a baax te xam ne maa ngi ñëw monsieur Yacine jox ko jour nga def ak moom lu neex moom Ouzin incha allah mais mais mais mais mais galañ. galañ lan lay def lan la parce que dama gis galañ des fois nekkul bant bu nekk lañu ñu mën a tëggee te nekkul tamit euh, der bu nekk la ñu war a fooyee galañ lan lay représenté ak fan la jógee. xam nga galañ ñaari façon la dafa am boo xam ne nii sump la mooy bii ma yor nii. Mhm. am boo xam ni nii la soo xoolee Babou Ngom buy tëgg galañ Dakar lay yor. bi nag su ma dee tëgg ay mitin ndax léegi man mitin rek laay tëgg ngénte yeeg sabar yi sama doom laa ko bàyyil su ma dee tëgg ay mitin bi laa yor mais bu dee làmb galañ Dakar laa yor. kon fu ci nekk booy dem ak galañ ba nga fay yóbbu. ak galañ ba nga fay yóbbu waaw moo tax ñaari façon galañ moo am waaw waaye nag dafa am loo xam ne nii avant nga jël galañ bi. ah sa la. da nga ko ma boo demee laajal ma ko galañ bi moo kan ñoo ko bokk wala ñan la koy abal. non galañ bi sama doom rek laa koy jox mais du keneen. kenn du ko abale. non kenn du ko abale soo jógee làmb ja. da mhm. ñëw tëj sa armoire. làmb làmb lay mooy mooy tax mu génn. waaw. ndënd bi nan lañ koy defee. non lii deru bay la rek kii garabu kii la rek euh, ndim mooy peeg. xam nga nga yett ko xam nga lii ay xiir la kii deru deru bëy bu jigéen la. xam nga deru bëy bu jigéen la. moom ngay taam ci deru bëy bu jigéen bi. waaw dafa am loo xam ni nii ko wax ci sit bi xam nga mais mbër soo amee combat yow mi géwél bi koy tëggal dafa am xeetu der boo war jënd. boo war a fooree ndënd mi ba nga xam ne ni boo duggee ci stade bi soo laalee rek ki toll ci ginaa stade bi. Mhm. day dégg soowu sabar yi mais loolu nag sëkkër la waaw bu émission bi passé jeexee. Mhm. naa la ko wax waaw. mais lan nga ñu ci mën a may loo xamante lu tuuti la mu neex ñu boole ko tàggatoo après tëj ko beneen yoon. Euh, dina am lu ma la ci may. Mhm. mais ci wax lay doon. ndax Balla Gaye gis nga contre Bombardier dafa génn benn wax tous. loolu tam danga nga koo fental tëgg. loolu yàgg na fental naa ko tëgg te jour làmb ja laa koy génne. lan nga may wax ci combat Balla Gaye Bombardier bu des une semaine làmb ji yàqu naka nga gisee woon sa mbër ci digganteem ak Bombardier ndax ñëwoon na Bombardier daan jël ci moom roi ne ko demal faju ba tane nee nga da ngaa demal faju ba tane saa boo ñëwee ma daanaat naka nga gisoon état dafa mu Balla Gaye ak nak nga ko gisoon moom. Ouzin dama lay wax lu leer Balla Gaye. Mhm. ba ko Bombardier di daan feebaroon. booba. Balla boobu nag. ak bii nga gis nii. Mhm. ça ay millions la jël dem France. entraîné di ñëw bi mu ñëwee képp kuy sénégalais wala ngay sportif xam nga ne Balla Gaye mi liggéey na. Mhm. jaam nag ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam ñun nëgg nii waroon na fekk ñu doon feete suñu victoire. ngeen daan combat ji. gis nga bi ñu demee ba combat bi des une semaine soo ñëwoon géej waay da nga naan non suba la combat bi ñëpp pare woon. Mhm. bu dee jom mi ngi ci Balla mën a bëre mi ngi ci Balla fit bi mi ngi ci la te pare woon na lépp lenn rek lañ doon ñaan parce que yàlla mooy maye ndam. Mhm. jour boobu yàlla ànd ak ñun far ak ñun arbitre sifflé combat bi du am trois minutes lu leer laa la wax. Hmm, yéen fi mu doon dafa mel ni taxawoon ngeen ci lu wóor de. non dama ne ku yàlla ànd rek moo neex. Mhm. kuy ñaan ñaana yàlla ànd ak yow mais pare woon nañ ci lépp. doole endurance physique rapidité. mais dama gis Balla Gaye chaque jour ci biir waxam day wax Bombardier lépp ci mystique nga ko teg. waaw mais yow Ousseyn xam nga ne sax Bombardier dafa mystique. waaw ah, loolu moom am na. yow xam nga loolu xam nga Sénégal yëpp xam na ne Bombardier dafa mystique. waaw te xam na ne combat boobu loolu rek moo ko ci mën a génne yaa ngi dégg te loolu ñun sóoroon nañ ko bu yàgg. di ñaan rek. Hmm. Ah, président Macky Sall mu xam ne réew mi jeunesse bi am nañ ci wàll mu ubbiwaat làmb ji ñu bëre combat yi ba beneen saison ndax fi mu toll nii am na ñoo xam ni jógewoon jóge nañ sax bitim réew. Hmm. ñëw pour seetaan làmb ji. mais su ma ñëwee ci président Macky Sall euh, dañoo gis vaccin yi fi mu toll nii ñoo ngi koy exiger nit ñi. ba tey jii nii suñu mbokku mbër yi ak journalistes yi ak amateurs yi ñoo ngi fii ci arène nationale pour dem vacciner wu lan nga ñuy wax ci vaccin yi. dama ne bu dee dëgg nga bëgg a dégg Ousseyn. Mhm. Sénégalais yi nañu dem vacciner wu. feebar bu nekkee cim réew. bàyyiwul mag bàyyiwul xale. bàyyiwul borom daraja. ñu ne lii rek moo lay aar. Mhm. dañu war a dem ñàkku ji jeunesse bi. maa ngi leen di ñaan ngeen dem ñàkku ji ki lay wax sangul sa taar la bëgg. Mhm. te vaccin yi moo lay aar man de ñàkku na mhm. te groupe Ngomes képp ku fa nekk ñàkku nga. te maa ngi dégg ñu ne combat yi même bu ubbee. Mhm. képp kuy ñëw di seetaan si da ngay ñàkku. indaale sa carnet de vaccin. indaale sa carnet de vaccin. kon gars yi dem leen ngay ñàkku loolu mooy dëgg man de président Macky Sall laa àndal. ndax ki lay wax sangul sa taar la bëgg. ñëpp dem ñàkk maa la wax li <laughs> Ouzin même bu nekkul loolu ki lay wax sangul sa taar la bëgg nan dem ñàkku ji mooy yoon waa soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tàggatoo tëj ba benn incha allah nga may ma nag li ma war may. xanaa Ouzin di la gërëm. Hmm. di la sant di wax wasaare làmb moment bi ñu toll nii. Hmm. yéenay pee. incha allah ndax yéen seen lépp dafa leer. Mm-hmm. image bi day nice son day leer. dëgg te moom la ñëpp di coow. di ñaan yàlla gën leen jàppale. yàlla gën leen dooleel. di nuyu Balla Gaye mm-hmm. di ko ñaanal jàmm. yàlla may ko ndam lu rëy ci ko Bombardier. di mm-hmm. nuyu staff bi. di sant di gërëm Aziz Ndiaye. ndax Aziz Ndiaye. li mu defal Balla Gaye ni téye ko. Mhm. ànd ak moom di ko gunge. géejawaay gépp la ko defal. supporteeru Balla gépp la ko defal. Casamance gépp la ko defal. mook bàyyi Ndiaye ak Masata. Mhm. kon Aziz ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla di la xamal ne maire yi sax soo ko bëggoon ñu ànd ak yow jox la maire yi géejawaay ndax Aziz géejawaay rek ko ñor. Mhm. yal na ko yàlla defal jàmm. di nuyu ñëpp di sant groupe Ngomès samay doom. maa leen di sant di leen nuyu. ci loolu damay ñëw ci ki nga xamante ni mbër la mooy borom la cinq muy Baba Jaxal borom sam-sam ki nga xamante ni bu jógee waa sam-sam jóg waa caaroy jóg ñëpp jóg ànd ak moom xale la boo xamante ni mbokk yi làmb am na ci moom yaakaar waa sam-sam am ci moom yaakaar waa caaroy am ci moom yaakaar di ko wax na ko happy birthday to you yow loo dund doyul guddal fan amal wér li ci sa kanam yaa ko xam yàlla la ko yàlla defal maa ngi nuyu ki nga xamante ni mooy cuun sama policier bi cuun sama valise bu gëj naa ñëw xanaa valise bi daa takk yónnee ma ko boog kontaan naa bu baax a baax ak njaboot geeg yëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu ki nga xamante ni mooy Père jaw kontaan naa ci moom bu baax a baax kilifa gu baax la kontaan naa ci moom ñu mën nga may ma lool rek. ñu dem waaw. jaajëf. <laughs> kontaan naa ci yow kontaan na yàlla defal jàmm. amiin amiin. yal na yàlla suturaal. amiin ñu bokk ñu. sa doomu ndey. kàggu kàggu. Mhm. borom image leer yi. kenn du moom xamal ne daal wasaare làmb mooy numéro un man Adama Ngom maa ko wax. yaa ko wax waaw. mbokk yi gis ngeen wasaare lamb mooy numéro un di leen jox dig daje ci yenn émission ci wasaare lamb jërë ngeen jëf.